ci jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne yéen a ngi seetaan Voice Out Digital di kaddu askan bi ñun nag jàngale la ñuy def télévision ne information education ak li nga xamante ne mooy foon waaye tey dañ indi jàngale lu tax si kanam tuuti dinañ leen ko gën a yaatal suñu gani tey nag moom lay dugal waaye damay bàyyi nag suma gaañi ñu dugalal parce que dañ ne aawo yaay mom laa bëgg ñu dugalee ma ko Aida Aida Samba moo ne aawo yaay kon dañ ma ekkatir rek aawo yaay ne ko aawo xale aawo xale aawo xale lu Send money internationally to your loved ones in the Gambia with FRS Money. Lowest fees guaranteed. We promise a fast, reliable, and secure services for you. At FRS Money, we are bringing you closer to home. kës gi nag naa xëy na ñàkk a wax ñàkk a jóg loolu waral sëriñ mu tere ku sa réeri bay doy doo dala xalaat kañ di la ba maam yéy abasa gi bi way ko abasa gi bi wane ko yaa yëwéni gore way ko abasa gi bi way ko abasa ku gudd ku njëkk dafax dafa njëkk kës gi nag naa xëy na ñàkk a wax ñàkk a jóg loolu waral sëriñ mu tere ku sa réeri bay doy doo dala xalaat kañ di la ba maam yéy yaa sëriñ abas way ko abas ñu ngi leen a jaajëfal bu baax a baax ci nangul bi nga xamante xamante ne nangul nga ñu ko yow waaye nag kenn du moom mi nga xamante ne mooy Aida Samba moom lañ waroon a am guys waaye Aida mu ne ma Eva ma ne ko naa mu ne ma ne maa waroon a ñëw waaye mënu ma koo meeg redirect naa la si suma awo euh, Fatou mooy man man maay Fatou bu ma fa nekku rek Fatou dina fa nekka ñu ñëw nag Valentine special. ndax Fatou moo nangoo boot ndax Aida moo neex a boot ban la ci. Aida moo neex a boot. waaye Fatou tamit dafa nangu boot. waaw Fatou Fatou yaay waaye Aida tam nekk yaay faal mu nekk taalibe te xam nga ñaari yow soo ko boolee rek da ngeen neex a boot waaw Aida soo soo ko fekkee si kër gi fii soo ñëwee ñu ne la Aida Samba mu ngi da ngeen xool nga ne anamu doo xam sax Aida Samba la ndax nu ma wàccee boppam te noonu la mel si biir këram noonu la mel si say mbakke tamit moom daal Aida moo neex a boot waaye Fatou tamit tàngul gannaaw tànguloo gannaaw yow ku ñëw nga boot roogante rawatina ñi nga xamante ne ibil nañ la seen bunta pour nga boot leen parce que xam nga léegi-léeg wujje dafa métti nga bugg a boot waaye mu am si ñoo xam ne duñ bugg a nga boot leen. loolu daf dee am. parce que euh, expérience laay waxee. te ci réew mi laa juddoo yaroo fi nag. Mm-hmm. léegi-léeg aawo yi bugg a boot waaye léegi-léeg ñi dee ñëw ñoo dee bañ aawo yi pour ñu boot leen. Euh, ñu bari dee si ka aawo yi mm-hmm. tamit. waaye yow daal wax nga ne Aida moo neex a boot. Mm-hmm. waaye Fatou yi tamit. day boot gannaawam. dafa seeda te bëgg naa boot Fatou yaay Fall la. waaw <laughs> Youssou Ndour bi nag bi yoon. snap bi wàcc ba zéro. Mm-hmm. xalé yi di len TikTok mm-hmm. nit ñi di len share ñi len xamul status Fatou ndax yow yëg nga loolu. ah man nak pour dugg ci website yi bari duma dee dugg fofu wa xalé yi nag sama doomi ñom ko dee wax ñoom mama gis nañ la fi gis nañ la fi ma é eh li mom <laughs> dafa mujjé ëppaloo sa ci man wa dëgg yàlla xalaat yaakaar moon sa dina toll fu dëgg yàlla emutoon fii rek dem na ba si frontière bi suñu dëkkandoore sénégalais yi ñoom itamit dugal nañ ko ci YouTube bi lu bare bare ba pare TikTok nañ ko am na ci ñoo xam ne sax soppan nañ la parce que duwut ne Aida waaye ni nga nangoo uuf Aida moo tax ñee nañ ci si sénégalais yi sax wax dëgg neex yàlla rafetlu seen ànda bi loolu man maa la ko eggee parce que gis naa ko si social media bi waaye bu ñu fa jógee tam Fatou ba tey si Youssou Ndour bi la ñuy des gis nañ ne Aida li nga na la ba fóon la ndax loolu Abass si ah déedéet Firouz kontaan ah? na si. ndax <laughs> Abass ah, Firouz si loolu. déedéet kontaan na si nag parce que xam na ne ah mag ah, mag bi fon na raka ji raka ji fon na mag ji te ay na suma doom la nag. du sa raka sa doom la déedéet suma doom la. macha allah suma doom la. li ngeen def ndax dafa nekkoon li nga complot sa diggante Aida la ngeen plan ko ndax. Aida moo la surprise loolu rek si stage bi bu mu xapu ne laas Youssou Ndour ak dis Youssou Ndour. ndeysaan du complot sax dafa dafa man si man dafa dafa lii dafa naturel. dafa naturel waaw moom dafa dafa moom dafa wàcc si xam nga ñu ambiance mu neex waaye nekkul loo xam ne sax wax nañ ko sax déedéet. waxtaanoo leen ko yéen ñaar déedéet waxtaanu ñu. seen biir moo dëgg yàlla. mu doon loo xam ne Aida Samb moo la ko surprise. moom surprise. moo dëgg yàlla wàcca si suuf ambiance ak man su ko neexee mën a taaw si kaw mu woy waaye wàcc na si suuf ñëw si man jox ma cër. kontaan naa trop wujje nekkul lu métti lu oyof la te lu neex la waaw lu oyof la lu neex la te dafa dafa neex hol so lu solo yeen ñaar ngeen jina seen borom kër muy tok di leen xool de kontaan. wa kine waa ka nekk ki kii ka ndisan borom kër gi. day toog waaye du nekk. dëgg la dëgg la du nekk à l'aise du nekk tranquille tam. non non mentally. gis nga su su time ay jotee sax di bi day def nii. Oh, waaw Fatou expérience ka de. waaw day def nii même su demee si kër gi soo ko waayee sax mu ciit mu ne ah mu mel ni yaa koy woo fekk woo loo ko xel bi moo toogut waaw. loolu moo tax yow nga ñeme wu jëbi da nga bëgg a jox sa borom kër. tranquillement mhm. tranquillement moo tax yow Fatou sa gannaaw bandang nga rek di boot. waaw parce que société jigéen doo ñëw rek. nga sey nga ne man rek la. te nga nekk jullit te sa yaay sëy na sa yaay su la waxee ne lum daj ci sëy yow doom soo ñëwee ci sëy di nga xam sa yaay nag tabaxal na ba pare ñëw rek nga toog te nga nangu jigéen soo nangoo rek day baax waaw. ndeysaan bu ñu doon dégg Fatou di wax ne jigéen ñi ñun ñoo war a dimbale wante suñu boppa maa ngi gis ne there was tears coming out of her eyes mu ngi getoon emotional eh, fekk na Fatou noonu la mel wax dëgg neex yàlla dégg ngeen nu ma ko waxee waaye góor ñi dinañ kontaan lool Fatou góor ñi kontaan nañ ci yow de ñu ne ah, ñu ne problème du am kon kooku mooy Fatou Bojang awo Abass Aida Samb fental ko wuy ne ko awo yaay yaay sama awo ñuy jaajëfal Abass jaaju bu baax a baax a baax ci disponible bii mu defal ñu bu doomi neen moom aba su bañoon parce que mooy borom kër gi waawam rek moo fay dox su nangu wutoon lii tey du xam mu defal ñu reer bu neex sa kanam dinañ leen won reer bi pour ñu war a mun a reer pour ñu tiim bi kon nag ñu ngi jaajëfal borom kër bi bu baax a baax tal ci one minute kan mooy Abbas Abbas Abbas nit ku tee la te Abbas dafa am yërmande dafa nekk it koo xam ne dafa am yërmande nekuna jigen jigen jigéen nekku na rek lay am yermande abbas ku dine la ku yermande la fa yerem doomu adam te loko ko wax suko mete méete samu la ndaysan abbas du téye dara si xolam man kay makoy togn kay waaw parce que man kii tooñ laa dëkk koy tooñ yow meluloo ni Eva. <laughs> non man tooñ laa dëkk gis ne moom. dafa dafa nekk dëkkal man mooy suma jëkkër moom daanaka lu ma wax mooy lu ma mën a wax mooy Abass yërmande mbay si doomi aadama nit ñi suñ ko xamee rek kenn du ko waxal dara. ndeysaan lu mu dugg nag lu mu def yërmande moo ko ko yóbbu lu mu am. nit. oh she's getting emotional waay li neex na bëggoon leen ma lii waay Abasa ko yor eh waay bëggoon leen ma lii jabaram a ngi jooy eh waay na jooy waay dama bëgg a jigéen bu na jooy Abas jar na ko bëggoon leen ma Abas ñu may faatu break. Abbas jar na ko lii jar Abbas jar Abbas mi Sisi jar Ah, Abbas jar na ko. Eh, xoolal Abbas ci kenn du ko téye. ah ñàkkuloo jom jëndewul ak gàcce sa yaay di morom. Abbas dafa jënd deful lu di ca boole. ñu ne jigéen ab bu baax deful lu ñaaw di eh, ca boole. suba sa gorewul. dina ba dàq ko. yóbbu ci sa corona ba. ndax fa la jugee. suba sa ngoon. waaw mu ne Abbas gorewul. dina jërëjëf ñu seddal xolam nii la góor bu mu nee këram jabaram day am day get emotional faatoo ngee jooy nii lañ ko bëggee Eva bu ñëwee faaw mu génnee rongoñ bu jooyu rek dina ma jaaxal kon nag lu muy oote newul ci moom ñu may ko rek mu seddal xolam moo tax ma jox ko juice boobu noonu waaye góor day mun a am këram macha allah yal na yàlla laftat bu ñu dugasee si kër bi rek xam nañ Abass dayo mooy kan kon ñu continuer waxtaan bi rek nii la Abass a ko jar ba tey si Abass mu indil la ngay gën a nangu ndax Abass óolite bu mu am si faatu la moo tax mu ñeme laa indil parce que dégg nañ ne nag Abass ku la óolu la waaye ñu yokk si tam ne la foyee wut faatu waaw. waaye wóolute bi nag man si ko parce que moom moo woon wóolute te man tam mu woon ko ko lu mu am même jabar bu mu bëgg def takk daf may tàggoo. oh daf laa tàgg ah, daf laa ne la Fatou damay takk. waaw daf may takk. nga ne ko waaw Fatou doo fiir. naan ko demoo suma takku dina déedéet Fatou doo xee déedéet doo fay di toj ah yow Fatou mii nag dinaa ko yóbbu lekk coowaay ah. <laughs> doo toj ay kër mel ni si tiktok bi jabaram ne ko damaa teg seen mu toj faatu doo toj kooku nag ndeysaan may ma may di setan si video bi ma ne ah jigéen bi war naa ko gis nag mu nekk sama xarit waa ah. dinaa ko yeet bu mu toj bu mu toj moo ko moom la ko wala léegi-léeg nga dégg ñeneen ne seen jëkkër ñu wuja ñu jël ay asib tuur leen ko wala tuur leen ndox bu tànga yow yooyu soo ko déggee naka la def a tànk ku nangu ak ku nangoo boot. xam nga seetaan na ndeysaan foog man sama xalaat seetaan moo leen di yóbbu rek. moo leen di pousse waaw waaye benn jigéen waaye benn jigéen bonu tamit. est-ce que du fiiru dof rek. waaw xam nga fiir feebar la. dëgg la. waaw la dëgg bu wér nga wax. feebar la te xam ne dafay rek te du te du dox si jigéen yi euh, góor yi de. si ñun jigéen ñi dox tout temps all the time so da ngaa gis ne jigéen soo gisee firim romba ne ko ah ah man gisuma la de rombal bul nangu mu dugg si yow soo firee rek all the time di nga xalaat loo xam ne dina la sonal doo mun a naan doo mun lekk bi sa biir fees fiir façon feebar ko xam ne docteur duñ ko mën a faj gis ne dafay nekk foo xam ne si xol bi yow kenn yaa koy xam ne fiir fii la nekk waaye docteur du ko gis déedéet so ñun jigéen dañu war a bañ si loolu ñu xam ne il faut ñu jàppalante jigéen ñu jàppalante man su ñëwee dina su ma wooyee damay takka man amul problème kan la mu ne ma diw man ko oh dañu fekk ci bés bi mu dem mu rafetal ko su ñëw mu ñaanal ko Fatou walu dafa metti de nga gis sa jikar ni ko def si generation bi tiktok yi. ñaari mu am jabaram bobu xejna na am ay xarit. istina bi fele bongo mani yi tamit dara xuñ ko ci nan ko yow la nop mu ne yow la nop mu ne yow la nop ngay gis yoyu ci status ne ko tamuñ defal dedet way lolu naan ko keneen ko mu wax ne moom la nopp da koy nax faatu woy yooyu itam neexut a jël de loolu woy la rek woy la woykat moom di woy rek ah te woykat lu mu woy ah. ko faatu man loolu mu dinaa daanu kirist naan ko mu ne keneen ku mu nopp dalay fuuxal yow la nopp non non c'est comme bongo bongo ñu dee bongo nii nii woy dañoo neexal affaire bi rek waaw yow loolu doo ko dee jàppee dara déedéet loolu dara si amee sax soo leen nekk tugee daal difay ni est-ce que du Fatou lu amul xarit motax yena iya, yu bari sonodul la parce que wax nañ ne tamit lo xarit yu bari do do doo dugalante. parce que tay dina bi tay gis nañ lu mel nonou ne Fatou du de dugalante sa génn bari est-ce que du loolu motax tay sa sëy nga mun ko tiyé ni parce que légui lég xarit nek nekk bu. waaw xarit tamit xam nga mun na kenn du xamné du woné mu am xarit waye domi adam bul nangu nit dila woné wan def li def. sa kër ya sa la yaa xam noo koy yóbbu ana saan waaye problème am rek nga ne suma xarit lii ak lii ak lii fu mu la lay yóbbu du neen déedéet jigéen koo gis ko xam ne day sëy même su fekkee sëyloo sax yaa ngi si yaa ngi nekkaat nit daal du la jaaxal dugg sa biir cabinet gis nga soo demee ba nga jàpp julli ba nga julli nga tëdda yàlla ngay waxal de. dëgg la waxuloo doomi aadama lu mu la rek lu mu wax rek si xel bi rek defal loolu doo juum. waaye léegi-léeg ñu soxla xarit yoo xam ne tamit dañ dee soxla seen input ñu bëgg a ñoo xelal léegi-léeg comme yow tey Aida dem na benn da ngeen waxtaan lu xóot. dëgg la léegi-léeg sax say problème du si ñàkk nga kool ko conseiller ko moom it mu kool la conseiller la xaritoo yooyu la ñuy wax Fatou. waaw Aida Aida nag man jàppee ma Aida suma xarit nee naa Aida suma doom la waaw Aida su amee problème su jooyee sax damay jooy. oh yow mi Fatou da ngay jooy su Aida jooyee loolu ngeen close. maa ngi seet benn émission moo Pape Yallo Pape Cheikh mu tegal benn vidéo bu yàgg mooy bu ma demoon Grand Théâtre yaay ji mu fa maam ji mu fa ndeysaan maa ngi ko doon seetaan dama xool rek ma ma gis ay rab yi jooy man noonu laa continué jooy nag bi moom suma dëkk bi sama fàtti ko waaw su Aida jàppee ma ne Aida suma xarit Aida suma xarit du suma xarit du suma doom la. sama doom la. te lu ma ko wax loolu lay def. dëgg la. Aida su bëgg ko def dara su ma koy Aida li ñuy def daf moo dinaa ko def te naa xam ne lii bëggu ko de waaye man maa tax muy def waaye dina def dina moo ne mag ji def naa di nga bëgg kon loo xam loolu cër la. daf la déggal may na respect. waaw. ñëwul di ay daf may rus sax. di tijjiwante ak <laughs> est-ce que du Aida xëj na background na moo mel noonu ndax Aida ci boppam la ndax ci yar bi la léegi war nga koo xam. non si yar bi la xam nga doomi aadama soo ko xoolee rek. di nga xam foundation di nga xam si gannaaw la. waaye léegi la mu am ñu ñu yar ñu ñëw ba gis étage yu Abass tabax nii rek ak pool bi rek ñu daanu ci pool bi nag reewaande solo leen solo solo solo ba ñoo lox <laughs> yàlla bu ñu leen jëlee nag ci néegi crinting ba indi leen fii ci high building bi ah léegi la background bi strong waaye bu ñu dugga see si façon kër yi manson yi reewaande solo leen ba avance reewal leen nag jox leen diplomatique passeport ñuy tukki ah rek ñu fàtte yar bi faatu ah as ah? eh. waaye Aida moom melul noonu Aida melul Fatou moom moom xam naa ne meluloo noonu yow tam ah because soo meloon noonu xëy na du koon comme li ñu wala rek doo doon jël Aida di ko boot. déedéet waa Fatou dama déglu benn interview yi Aida Samba nga call fa. Mm, Aida Samba mu ne su ñëwee fii sa cabinet nga ko dee ibil. waaw mu ñëwee fii mooy foos ñëwam bi. nga óolu ko bi waaw sa fii laa jógee woon ma toog si fii ma toog bi dara gis ne dafa xaw a méttiwut waaw. Ah, fii nga jógee fii laa jógee ma ñëw fii so da nga gis ne bu mu ñëwé eh? bu mu ñëw Gambia fi mënon na wane su ñëw mu dem hôtel wa mënon na wa di wa hôtel ma appartement oh nga yom ma hôtel fi hôtel yi rafet sha allah ma kër sax ni faatu wala no amna kiram kiram defar nako ko kër sampal na ko kër Dakar mais dafay ñëw fi pour seet si waaye daf ma woon ne Fatou su ma ñëwee Gambia sa kër lay nekk. Oh. ma ne ko amul benn problème ma ne ko soo ñëwee di nga gis sa bopp. ndeysaan loolu nga ko dikk. waaw te bu mu ñëwee waaw dafa ne salaamaaleykum rek ma gis ko ma woo te loolu nekkul foos pour ma gisante moom dama gisante moom mais loolu mooy foos ñëw suma kër gi dama ko xool rek ma gis sama bopp si moom waaw léegi comme time tëra jot am na am na moom am na am na am na bi soo duggee si kër gi rek boobu nga jàkkaaroo si kaw waaw defar naa foofu yëpp waaye ma ne ko nag sama nekk cabinet mu ngi ni dama bëgg nga fanaan fii yaa sa borom kër oh. waa fekk nag man daanaka jeexaluma sa toxu bi toxu si bi waa mënoo faatu ah yow doo toxu si ma ne ko maa ngi ñëw de suba lay yaa njëkk a toxu si nag après suba ma ñëw <laughs> mu ne ma mu ne ma déedéet mu ne ma téemook téemoom fi ngeen te yaa njëkk a toog si fi suba man dinaa ñëw dee nga lu de dee leen faatu. yow ya, da nga bàyyee ko sa néeg ak kër bi yëpp faatu. waaw oh lu fort. dëgg yàlla parce que waaw dama ko wolu. man man aw ma ñaari xel De man parce que yalla mu ne so amé ñaari xel sinit rek kon wolu mom. te so len xasse be ngeen bokk ben. góor waru leen am mante ñaari xel déedéet nekk leen benn ngeen joxante seen xol waaw waaye ñaanal nga ko tam ñaani xaas nga ne ko ene nga ko siix nga ne ko yow pare nga waaye bu nga nga moom mu indi siix benn bi mu tuddee ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sanga sangi ñep mm-hmm. benen bi ngeen ko mu tuddee ko seen jëkkër ci boppam patu keroog bu ma sétane lolu man dama doon joy man suma bop dama doon joy parce que li ma dee gis si wujji ak lañu wone ci théâtre ak yima tek suma bët mënumaa góob nit dina dugga di ñaanal lé nonu té ci xol nga ko doon ñaané faatu loolu la ko sabab buga bi nga buga ayda la ndax ndax jox la ci ayda bi nga am waaw ci bu ma jox la ak xër bu si daf ma jox def ma jox cër te maa ngi ko ñaanal nag yàlla suñu borom may ko parce que dafa ne nga am doom nga tuddee sa jëkkër dafa ne waaw comme moom moom la la yàlla suñu borom mom moom moom la ko teg si bunte bi te maa ngi ko ñaanal suñu borom waaw indi ko naa gis na ma dem Dakar na ma dem Bambane nag. nga dem Bambane Fatou xanaa boobu ñaari xew la ñu am dañoo xew Dakar xew. <laughs> waaw gis nga waaw. xanaa boobu da ngaa langa fii langa Dakar. waaw dañoo def fii ngénte ñu dem fa lay ngénte. ah léegi ñaari ngénte nag. waaye Aida nag dafa mel ni bëggul lu bari moom it dafa simple. waaw Aida dafa ah. simple nag. moom it dafa mel ni noise lu bari bëggul. non non non. Ah? non non moom kay moom noise su bari sax nga gis muy commencé di xool moom at musicien boo xam ne bëggul noise déedéet bëggul noise. déedéet bëgg wane woo su ko am mun na wane am na damay wane woo waaye su ñëwee nee naa la rob sol ay loolu lay sol. gis naa seen nuróore kon ba tey yéen ñi seetaan Valentine spécial suñu gan mooy Fatou Jaaju Jaaju aw yaay aw buri këram Aïda Samba mënul koo méeg waaye redirect na ñu ñu ko jaajëfal beneen yoon di ko rafetlu ci li nga xamante ne su ko neexoon mu ne Eva dëkkuma fa maa ngi Sénégal si samay activité waaye dafa ko benn yoon mu ne ma Eva du ma toog waaye Fatou na ma toogal sama place moo waral jotaay bi ci Valentine spécial mbëggeel la ñuy waxtaanee ñii nag bu ñu doon joxee drapeau yu mbëggeel at bi ñoom lañ ko jox li ñuy def ci Youssou Ndour bi ci ñi nga xam ne ay co-wives lañ sedda na xol dalal na xoli borom kër yi dalal na xeli borom kër ñi ñiy góor góor ñi seen bopp sax ñu ngay jël ñii di leen teg royukaay naan leen xool leen si Fatou ak ki nga xamante ne mooy Aida Samba kon nag góor ñi tamit def nañ ñii seetu waaye def nañ leen référence référence boobu moo tax dara taxul nag ñu seet si leen référence boobu moo tax ba dem xale yi seen bopp ñiy sëy ñi nga xam ne am nañ 30 am nañ 27 di sëy ñu ne ma Eva ma ne leen labayka ñu ne ma ne bu fekkee ne ñun suñ borom kër dégg nañu wujje bu mel ni Fatou ak Aïdara kon nangu ne ñu wujje kon loolu dafa ne ay référence lañ moo tax ñu seet si leen iya bi co-spouse in the Gambia raaya bi ñoom ñoo ko jël te yeneen tamit ñi setaan xam naa ne dangeen ànd ak man ci loolu kon nag du yàgg duñu ko téye Abass tey fii la nekk duñu jël saay bi madamam reer bi pare na si kanam tuuti waay du Ibé moo doonoon suñu gan waaye dinañu neex lool bu fekkee Abass toog na fi ñu ne tungu ne du teew ñuy netaal waaye nag gannaaw bu ñu ko dugalee rek ñoo dégg kàddu yu rafet yi ci faatu wax waaye nag fu mu nekk dañoo jaana dem ci Abass Abass nuyu nañ la. Abass waaye yow li sañ sa foo ko teg ah Abass maak nga laal nga maak nga laal de maak nga laal de Abass Zahra nga laal de ah design na bu na si kaw ba si suuf macha allah Abass nuyu nañ la. li tax ñi ñëw tey nag sa jabar yi ñoo ko waral muy Fatou ak Aida Samba parce que IYE bi suñ doon joxe li nga xamante ne mooy award ñoom lañ ko jagleel te du ñaaka yow sa réaction yi gis nga ko si sa mm-hmm. social media bi gars yi wàccee nañ ko bi zéro dem na sax ba abaa naan la abaa sa ngi ñaxa mm-hmm. abaa sa ngi ñaxa abaa sa ngi ñaxa mu doon loo xam ne nit ñi jël nañ ko di ko tiktok abaas lan lala def boo gisee sa jabar yi lëngoo bekki sante nga toog fi nga toog lan la la def. bég am say am sa sa famille. Mhm. nga gis ñu nekk benn. bu say jabar sa say doom dafa ne. dëgg la ah, jabar ah, jabar dafa de. Mhm. ndax ñooy ñooy sa ñooy sa protection. Mhm. góor boo gis bu taxaw dafa am jabar yu dëgg ak nekk si ginnaaw. te man macha allah ah, maa ngi laal. ñu eh, tur waaw. Eh, wax dëgg yàlla yàlla ñu ma dénk déggal nañ ma. sutural nañ ma wax dëgg yàlla euh, aw ma dara lu ma di wax ndax kontaan rek si ñoom. kontaan toujours. réaction yooyu boo ko gisee Aida Samba ñëw lënga aawo bi aawo yaay te yow la njëkk a tagga nag Aida dafa def feemam dafa surprise Fatou woy la tagga la ba ñëpp ne foofu la emu tourné ñëw ci Fatou boobu moment Abass lu lu Aba waxoon dëgg la yaa ngi doon ñaxa boobu moom. Euh. ay taw laa doon <laughs> ndox bu bëri may si xaw ma doon fu mu ngay sit rek. di sit rek. ah vraiment lu neex la. Mm-hmm. Um, ñii dam leen di sant di leen gërëm Fatou maa ngi koy sant du ko gërëm. Mm-hmm. Ah, man ak Fatou fu mu jógee dafa sori. dëgg la dafa trop mu métti woon lool waaw. xam nga ñi moom teel lañ fu mu jógee moom na lool. Mm-hmm. waaye mu muñ ko rek. te tey egg si tey egg ma si lépp lu nga xam ne mënul na toog mu ne déedéet ñu maa ko maa ko ñefe maa toogoon fii gis moom kenn ah, waaye lu ma ko indi rek. mu jël mhm. lu ma ko indi rek mu jël. ndeysaan ko gis kanamam rey rek laay gis moom lu mu def loolu koy seeti. Mhm. ma defoon leneen tamit ah mun xanaa mu nekk jigéen man noppi sutura ko waaye du ko kon lu ma doon topp di ko Abbas mm-hmm. man li ma wax waxoon naa ko sa gannaaw naa ko wax sa kanam ñu bari xamuñ la dañ la dee jog rong li maanaam si social media bi dañ laa jog rong li tey bu ma ñëwee ba gis la ma gis Abbas vraiment li ma gis si Abbas mooy ci oyof bi te sa jabar wax na ko mu ne taalibe nga gis naa taalibe parce que ñun kenn nekkuñ fi woon am nañu fi njëkkoon a ñëw mm-hmm. waaye ñooñu sa seen bopp wax nañ ko parce que nag nopp amut ko biir wax dëgg neex yàlla maa ngi toog si saal bi waaye ñu ngi naan buñ la sa oyof man mo may njëkkee rek confess ne la man nga njëkk maa balal parce que giseen na la si sosa man may njëkk jégalu ah parce que léegi-léeg ma ñëwé no xamné sa kaw analyse la no xamné té xawma man may njëkk a jégalu en tant que séeréer nga jégal mo man wa xamna tab abass ñi nga lakka dina bari ah. parce que xamuñ abass léegi-léeg mbuba buñ la dé solal ah ndax dang ko dé déggal mbuba yuñ la solal abaas ci jamono bu nga xamné ci mm. social media lañ waaw man man ci social media. definitely. man every day maa ngi si biir di seet. may gis li ñu lu ñu wax waaye noonu la àdduna nit yàlla su lay def dara. Mm-hmm. di nga dégg lu baax di nga dégg ñaaw. Mm-hmm. waaw lu important mooy yow xam nga sa bopp yow kan. Mm-hmm. ak fan nga jëm loolu moo gën a important. jarul nit wax lu ñaaw si yow nga tontu jaru ko tontu moom jaru pata pataral boobu foogaloon ne Aïda Samba moo la ko jàngal parce que nag boo sam duy tontu mu Youssou Ndour noonu nga musa mel doo doo de réact si dara. ah kon am nañ lu rëy am nañ lu rëy ñun waa Voice Out. Mm. sa jabar. ñu ngi lii euh, occasion la pour ma toog tamit gërëm leen. Mhm. ci bési mbëggeel. waaw ah, ci sa kóorale ak ñoom. waaw allah waaye man nekk man nit euh, ku di wax. dëgg la mosuñu la dama dama ragal. caméra donc fu <laughs> ma ko miinu loo ko waaye di miin parce que femme média nga am muy Aida te xam naa soo demee Sénégalais yi dañ la dee bëgg a interview nag di la bëgg a teg maay bëgg a xam ah Abas di multimillionnaire di Gambien millionnaire noonu lañ la dee taytule di millionnaire te wax dëgg ne yàlla nag millionnaire nga nag Abas li ma gis fii tey ñetti moto laa fi gis gars yi wane leen ma këri Abas bi ak moto Abas bi ñetti moto la fi Abas teg Abas foo jeekoo ci réew bi Abass pool bi rek ay million la ah, waxatuñ nag li nga teg ne ah Abass si biir décoration bi benn jógee wut Banjul ah yëpp bagaasi Amérique ak ak Dubaay laa sa tooke <laughs> laf cat suma bos ak suma bu morom mm-hmm. ah lu may wax si sama morom góor ñi mooy mm-hmm. nag sooy liggéey bëgg a nekk mm-hmm. la tuumal si lu ne waaye lu important mooy yow xam nga yow yaay kan Mm-hmm. ak lan ngay Abass góor ñi dañ la ñëwee hmm? laaj ma lu tax parce que ñu ne xel bu dal bi nga am hmm. ñu gis Aida Samba ñëw hmm. lënga aawo bi woy la ba pare tagga la nag Aida bu mu doon tagga ah ñu ngi gis nag dereti jaaju bi mu ngi tànga wax dëgg ñu ne dañ la ñëwee ñoom góor ñi parce que am na ñoo xam ne tey seen kër seni ay jabar ñoo ko tas am na ci góor ñoo xam ne amuñ xel bu dal dañoo dem liggéeyi aawa bi koole fële seet bi koole fële kaay àtte yow loolu yàlla mayut la ko Abass ndax Abass lim takala ndax sans bu la yàlla may la. loolu um, foog naa lu may jëfee la. ak mm. ñoom xam nga jigéen dañu comme ay xale lañu. Mm-hmm. dañu neex nax mooy euh, lu ma tama loolu mooy man tey su ma amee dara. Mm-hmm. su ma amee yàlla suma ma wërsëgee dara ma bugg leen jox lu may jox Fatou lu ma gis ne moo njëkk a ñëw fii. moo ma njëkk moo njëkk see ak man. lu may jox Fatou loolu lay am la jox Aïda. ndax ñoom da leen emale ñoom ñoom ñoom si man. fekkee ne Aïda léegi la ñëw sax waaye sama jabar la bés bu mu demee ba dugg sama kër rek gis naa ne jabar la raay bu Fatou am raay boobu la am. ah mais su ma leen di sédd dara dama war a lu may jox Fatou ma jox xam nga loolu soo koy def rek jigéen ñi léeg-léeg dañoo toog di wax. Mhm. wala ñu am ay xarit. ak ñoo mun a wax saka xarit ñi sax xarit ñi wax. te wax ci yow yàlla bul ko dégg. waaw fekkee ne man jox naa Fatou leneen. Hmm. lu utee ma jox dox dox dox dox ba Aida dégg ne ah. waa defar na kii defaruma xam nga problème stade la. dëgg la waa ah am na fu ma tek bii noo kii am na fekk du loolu. Hmm. say jabar say jabar la loolu yàlla lañ ne. Hmm. waaw affaire jabar foog naa yoon yàlla la ñëpp ñu uti. li nga xam ne dañ ko yóbbaale suñu suñu suñu suñu suñu jël. dëgg la dëgg la man doon laa ko gisee. macha allah moo tax ñoom macha allah ñoo tax ñu nekk nit ñi nga xam ne dañu doylu. Mm-hmm. ah ba pare tey ay ayda moom moom moom da ngay foog ne nekkul artiste. ndeysaan ayda soo ko gisee si tey ak fekk si kër bokkul. gis nañ gis nañ loolu ñu ne Aida bu ñëwee Fatou moom moo dee dugga waañ yow nga noppale ko. waaw waaw dafa dee ne nga noppale ko ba moom mu dem. moom mooy tooga ba ba waxtoom jot mu ñibbi. waaw dëgg yàlla ah? man lu ñuy wax si artistes yi comme ñuy wax si jigéen artistes yi. celebrity life celebrity life moo dunda. waaw soo duggee lii loolu du. gisuloo ko si Aida non loolu si Aida. Hmm. Aida moom macha allah taalibe la daf ma jox kër ma respect. nekk sama xarit. Hmm. Ah? wax dëgg yàlla nekk xarit ñëpp si kër macha allah waaw wàccee boppam suufel boppam wax dëgg yàlla amuñu benn lu ñu wax si Aida allah yàlla dañu ñaanal ñu rek. <laughs> ñaanal leen ñu rek ñun ah. dinañ leen ñaanal sax. waaw waaw waaye itam seet ngeen di bariya ah, ba nga xamante ne hmm. suma génération bi ak man ñi ma mag bëgg nañoo wujje bu fekkee ne. faatu ak da niñ mel hmm. loy am pour encourager jigen yoy ak góor ñi nga xamantene ñu ngi am ñaari jabar sen kër lëj lëj ma wax si ñom moy ah hmm. nañ mel ni man rek lo da nga da nga da nga loké rek Abass non du loké ah du dem ko liggéey tamit waaw dëgg la xam nga nit hmm. tamit dañu foog ne ñi naan yalla yalla du wacc ci kaw ah dafa am lu ngay jaaré yalla ñu fexina si la du dëgg kon dal Abass ko liggéey waaw dama ko liggéey Hmm. ñii damay wax ak ñoom all the time di leen xelal te ñun góor leen ëpp soo si jigéen ñu si hmm. si ah ah. hmm. loolu sax dinañ ko mun a firndeel parce que gis nañ si Youssou Ndour bi passé ak bële passé yëpp yaa ñoom yaa yéen a dee toog ah, su la neexoon nga ne Aida Gan la moom laay gunge te Fatou yi dina la ko doon nangul du doon dem waaye yéen ñaar yéen ay ànd te waaw ay dem dugg si benn moto kii du demee moto bi kii demee moto bi. Mm. su ma nekkee ak ñoom kafak ree ambiance ah jox respect ñëpp nu ma respecté Fatou nu ma respecté Aïda noonu xam nga emale leen di waxtaan ak ñoom nekk doon samay xarit man aw ma xarit ma jéem sax. man fii doo doo wax Gambia fii kii joxoñ leen kii. kii mooy xarit Abass man su ma demee liggéey sama office ñëw toog man ak ñoom la su ma amee lu may dox ma wax leen maa ngi dem. Mm-hmm. ah dem doxi loolu ñëwaat toog waaye aw ma fenn fu may dem. macha allah ñoom ñoo sama xarit. ndeysaan waaw Aida téléphone la ñu nekk 24/7. ndeysaan waaw dafa mel ni Sarr fii la ko. fii la oh. te moom tamit di ko gërëm bu baax. Mm-hmm. Euh, na mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla bu mu sama loxo ba tey ah. dara. def def na li muy try muy try bu hmm. baax di ko ñaanal bu baax tamit waaw lenn tamit laa bëgg xam euh, ngeen xam hmm. ñu bëri dañ foog ne Aïda dama xëy ak moom rek di sant ak moom rek ñu sëy non man ak Aïda daf ko liggéey balaa mu mu dugg si sëy bi dégg nañ ne Fatou yaa ko takkal Abbas ñu ne Mbaye Gueye Fall si yow la jaar loolu man maa koy tontu <laughs> yaa ko waa tontu ko ñu ne Mbaye Gueye Fall si Fatou la jaar Fatou indi correction bi waaw waaw sama xarit la Mbaye Gueye oh, Faye wax na ko. te yàgg na saay bu mu toogee si télé gërëm la nag. waaw yàgg na. man Dakar laa nekkoon di def lu mhm. nga ñëw Gambia. ubbi business bi. Mhm. man Mbaye doon woy foofu baaw Carlo. Mhm. sama xarit. si blocage la bokk. sama xarit la man foofu laa xamante ak Mbaye Dièye léegi bu Gambia nag sama connexion bi ak moom. mu xaw a moo maa ngi ñëw bëgg a samp dara fi bu taxaw dama stop communication yëpp. toog naa sama xarit yëpp laa off. ma ne man daal foog ba dëgër ma soog a commencé di wax ak nit ñi benn bés ñëw. tasak Mbaye Dièye fekk ñëw nañu 2000 foog naa 2017 tega Gambia fii mm-hmm. suma suma tutusan seventeen ma gis ko kooku Ozone si réception bi sa lañ mu gis ma rek mu ma gi yuuxu mu ne yow wuti naa la ba sonn oh. you know ñu bëri dañ foog ne moo tax ma xam Aida fekk man Aida fu ma fu ma xamante ak moom yàlla rek ma xam ndeysaan man ak fu ma suñu xamante mm-hmm. ah nit daal ñu ne jum nañ si Mbaye Gueye daal non non dañ ah? moo jaar ci Fatou Fatou ñëw ci yow xamagul dara. xamu ci dara xam nga kañ la xam ne man ak Aida Sadji dañ jéena. ah mm-hmm. bu ma demee ba. jël décision ne pour taka loolu si Radisson fekkee time corona bi. Mm-hmm. may dem Radisson nekk naa Radisson three good months. parce dama nekkoon fii. mun mm-hmm. ma jéena. nekk fi nekk fi six months. bu ma amee yoon ba dugg Sénégal rek ma ne Fatou ñeen toog leen fa ma ñëw ma <laughs> <laughs> ma doon toog Radisson three good months di lii laa xalaat mu ma kan la. kañ nga xamante ne kii man man kii xamante naa ko moom ñetti at. Oh. ñetti mm-hmm. ah, bu baax balaa na tam ci yëre Aida ndax Aida bu doon xamante sa jëkkër mus na laa gëteen di la kookali di la seen ay message parce que nit ñi dañ ko dee def wala ngeen tase xaw muy wane boppam dëkku fi sax naam waaye léegi-léeg mu am dina fexe xëj na ba dugg ci téléphone yi Abbas pour bugg a seet naan ko dama bugg a seet Fatou pour just provoque ko seen ko message nga Aida mos na laa def yooyu. déedéet nee naa Aida taalibe la. taalibe la déedéet du def loolu. musu ko def musu ko def forcé boppam nga xam ko. déedéet Aida sax dafa ragal. Aida ku ragal la. daf ko nuba ba takka bi bu mu amee mu jox sa ceeb. non Aida ku ragal la. dafa ragal. <laughs> dafa ragal. wallaahi Aida ñëwee woon nit mm. du def moom du def loolu. du ko def déedéet. parce que ñu ne lu nuyoo ci ngoro ba rek feeñ ci sëy ba ndëkkoon dina feeñ ci sëy bi su doon noonu la mel wax dëgg yàlla ah, macha allah laajte la rek boo xam ne dañ koy laaj a ah, du ñàkk bu ñu toogee du ñu ko neexal yëpp tamit mm. waaye mbay Gueye fay kon gis ngeen moo tax ne dina laka nit parce que Mbaye Gueye Faye wax nañ ne moo jaar ci diggante bi dañ ko tooñ mm. dëgg la dëgg la gis nañ ko si Aida ñu kenn si si xalaat super Abass ñeneen itam wax Abass dafa bëgg a feeñ moo tax mu takk Aida Samba parce que Aida célébrité ba pare ñëpp xam nañ Dakar télévision eh, mm. Futur Média muy fm fu Aïda Boka Aïda Boka ci orchestre bu ñoo wax euh, Jolof Baan bu Youssou Ndour mu bokk fa ci timi Youssou Ndour bi muy aw kuy dem ba aw Youssou Ndour ñu ne Abass correction boobu la bëggoon moo tax mu takk Aïda Samba looy tontu ñooñu di ko wax. Mm. yaakaar naa bu mm. fekkee dama bëgg a feeñ rek bu ma moom laa koy takk waaye 17 18 19 ah. 21 mm. foog naa 21 la ñu 22. 22 ngeen 21 ngeen mm. Mm. te kenn xamul. Mhm. su ma feeñ kon lu ma ko si tout ça tamit ma <laughs> nga nit ñi dañoo wax rek waaye loolu nekk ak xalaatam. ak gis-gisam. nit ku gis-gisam. doo leen mun a forcer doo mun a forcer nit lu mu xalaat. man ku ne feeñ la. feeñ gis nga taam yaa jàmm. kon feeñ naa bu yàgg. non célébrité la sax si ana bëggoon kate. bu man dama bëggoon feeñ. Eh. kon feeñ naa. daa nga xam yaa jaro mu ngi fii. dëgg la naa good connexion ak fa euh, government. dëgg la musuma dégg fenn. musuma gis fenn maa ngi nekkoon. gis nga Aida soo gisee sax takam yàgg yàgg naa dugg plan pour suñ waxee rek man ko rek. moo ma ragal lu mooy damay ñëw siiw xam ma. maa ngi waaw célébrité nga say waaye yow célébrité ci réew mi Abass. waaw ba tey ay da bu la yokk. la gën a yokk waaw loolu am na. léegi laa gën a am problème ma dem ñu joxal ma. foo dem ma <laughs> ah? sa kaw Sénégalais yi bi ah, ah? ah. xale bu ndaw a dem tamit ma jàdd ah. <laughs> ah léegi loolu yëpp amatul. gars yi feeñal nañ la daal feeñal nañ si bi. ah so li nga gis ne over four good years lii la moo nakul sama xalaat. ndeysaan moom bu ma xamante ak moom mu bëggoon yàlla sëy ak mhm. mu am yëpp si man moo ko liggéey. nga mhm. daf ma ko woon si bu ma xamante ak moom. ndeysaan yow laa nga nekk sama bopp xam nga loolu dafa neex. Mhm. nga am jigéen bu toog balaa nga koy takk mu ne yow rek laa bëgg. ngeen dawale at mu ne yow rek la nga bëgg mu muy wax yépp ci boy bi fi mu muy wax ni yépp daf ko yàgg a wax ah mu ne ko saga man day yow laa nopp xas ma dóor ma man yow laa nopp ko yàgg a wax kenn mun na ma seede sama benn xarit ku may àndal mu tudd Babacar moom laa dee àndal all the time mooy sama nit moom xam na fu ma start ak ay daal ak def fu mu nekk waaw way boobu nag ñu bari dañ ko gisee ne gaar la saga ma rey ma abaas man yow laa nopp waaw waaye daf ko miin kon. kon xamuñ ñun understand ñu. damay wax ne Aida lu mu nekk di def. Mhm. ak lu muy wax lu dafa bëgg a gaar wàlle Aida du nit kuy gaar mhm. number one nit war nañ ko xam. Mhm. musicien la yàgg na si si showbiz. si showbiz waaye kenn dégg ko si yooyu. suy wax si jëkkëram si lu mu di dund la. tamit. waaye is good na yow leeral nga ko pour ah. nit ñi xam parce que nit ñi xamuñ woon ndax euh, ànd neexul mhm. léeg-léeg ngeen kuloo léeg-léeg ngeen xeex yooyu yëpp si ànd la ñu ne ay xale lañu dëgg la waaye mu ngi toog ah man da bëgg leeral ma bëggalam te man tamit jàpp si yàlla xam ne kii jigéen bu bëgg a sëy la man tam ma takk ko dekk sama xarit macha allah affaire bi demee ma ne ko macha ah? allah ma ne ko macha allah ñoo ko déggandoor Hmm? ma ne ko ñoo ko déggandoor kii mooy Abass yéen ñii seetaan Valentine spécial lañ am ñoo am Abass Aida Samba moo waroon a nekk suñu ges waaye loxoom dafa jàpp mu studio am na programme bu moo waajal uh, bu ñu fàtte ne tamit fan naa mu ngi am événement on the 17. on the 10th on the 10th of March incha allah kin faxat lañ ko defee uh, kon ñoo ko déggandoor dega naa nag mu ngi leen a waajal lu rëy wax na ko moom si boppam mu ne ma dinaa wéyal Fatou dinaa gédeel est ce si album boobu la bokka est ce que du loolu la hmm. du la koy wax daf laa surprise ah Fatou ndax bés expect spectacle parce que ñëw na sa dëkka la spectacle def na loo xamante ne expect ko woon ci Aida mu defoon ko last year bi yoon lu olofi dooli cere dooli ñeex mu gën koo def mu ñëw bi lëngala nit ñi naan yaa soo seetaanee TikTok si sax wala vidéo yi ñu ko si yaa ngi dégg ñu naan kii mooy ka ñu ne ko kii mooy wujju bi mu doon lu neex nit ñi naan oh ndeysaan oh là est ce que yaa ngi sóoraale pour fekk fa spectacle boo xam ne dina la surprise yow yaa sa jëkkër kenn faxaat on the on the tenth of March xam naa parce que liggéey na ko hmm. xam nga loo doon taalo bi rek nga doon sëriñ liggéey na ko ñaata at Aida soo waayee soo waayee Dakar Aida Aida rek Aida Samba rek xale yëpp xam nañ ko parce que xam na ne woy bi da ko doon si maamam te mun na woy te baat bi neex na am na ñu ko fa defoon ñu xam ne eh, lii na waaye surtout Aida woykat la ndaanaan la te loolu xam naa ne dinaa fekk macha allah surprise bari yu mu leen tegal macha allah kon ñoo ko déggandoor ba tey ci biir Valentine spécial bi ngeen ànd ak Voice Out Digital euh, euh, kaddu askan bi askan bi ñoo wax moo tax ñu génn si seet si leen seetewuñu Abbas parce que poosam dafa dis déedéet xamuñu ko sax aw ma nombaam waaye di ko jaajëfal nag ci because moo ñu ko su suñu ko nanguloon waxtaan na neex borom kiram su ne woon faatu noo tey lii du doon mun a xapun ñu surprise nag lool ñu ñëw fekk fi reer gis ngeen ko gina dina de gala la ñu defal invite kenn mu ne pour ñun rek kon nag Abass ñu ngi koo kon daal luñ la taytulee millionnaire gis naa ko de bu ma egsi sa kaw xam naa ne nga Abass millionnaire Abass foo jëkk ko ñu ne yaa daan amee daya moo ne yaayaa jaame yi ah ñu ne yaa daan wéccil yaayaa jaame daya moo na mi ah Abass loolu lañ wax ñu ne foofu nga jeekoo yaa daan ñëw England di dem Amérique di ko wécci ñu yaayaa jaame yi ah ñu ne foofu nga jeekoo de hmm. lay bañ rek du kon moom moo leen taxi bi sama morom ak. Hmm? Eh, problème bi mooy eh, nit ñi soy liggéey duñ gis lool ah abass lool la gaaw ñu né so so sooy noos sa nos ñu lagi gëtal la jëlé li nga def li nga def. <laughs> kon lool amut. Ah? do daan wéccil yaa jëme dayo moo lool ah ah way ñu né alel bi daal fofu nga ko tibee de. ah abass kéré 10 million nga tek laf chat kéré 10 million nga tek laf chat man bala ma nek sama teranga. Hmm bala may xam yaa jam hmm, kat nga waaw nah, man dama am sama teranga bala may xam yaa jam sama teranga foofu laa xamee yaa jam parce dañ ma soxla ndeysaan da nga am correction bi wala da nga am correction sama liggéey lañ ma xam waaw waaw man noonu laa mel man duma topp kenn hmm. man sama liggéey laa xam ah loolu laa xam duma topp kenn damay toog xaar ku ma soxla nag waaw nga jóg <laughs> ma jóg Fatou mu ne restaurant ngeen tase mu defaral sa rasta yi mu trital la ko ah est-ce que du massage yi la Fatou doon defal moo tax ah ah si salon bi ah est-ce que di loo xam nga rasta soo ko massage dafa am nooy dugalante wéyi si biir est-ce du loolu wala ndax yaram ak dalam moola dugaloon ci faatu euh, xam nga yàlla su lay mm-hmm. su lay su la wanele ak nit. Mm-hmm. nekk nit nga xam ne euh, war na sa sa sa dund. Mm-hmm. da kon Fatou dafa njëriñ sa dunda yow. waaw a mooy Fatou mooy Abbas. ndeysaan awo loolu foro. ah woy ko Fatou mooy Abbas ana gaañi. ana gaañi Fatou mooy Abbas ah. waaw waaw. woy leen loolu woy na leer. dari Abbas ay Fatou. Fatou Abbas. mooy Fatou. ah mooy Abbas. yee Abbas mooy ko Fatou mooy Abbas. yee Abbas mooy Fatou. ah mooy Abbas. yee Abbas ay Fatou. waaw Fatou mooy Abbas. yaa Samba Sagna yaa dëkk Gambie ah. Abbas. sinaa ba loolu waay tida. sa kii moom a yeewu. du yëpp du furi kenn du ko ñambal. buy jël réew mi Abbas. ma ko mooy Samba Sagna moo ñeme lu métti moo ñeme asi woy dooli leen dooli leen dooli leen mooy Samba Sagna. yaa Samba Sagna yaa dëkk Gàmbi te ñeme lu métti yaa sa coono raagala koo asi Abbas yaa jublu moteur sarra kii moom a du yëpp furi kenn du ko ñambaas yow ba nga yegg see xel yi dal Abbas bi nga yegg see xel yi dal. na xolal séeri ya yow ca kanam ca kanam amin ya sa balaay neex saf saf la ñoo ya? wax ñu ne abbas mooy samba sanya mo ñeme lu métti mais na lu métti nag dékku ñaali jongo malabe ya. yaaxu nyu ya, yaaxu ci dara xolal handsome jongoma ci góor ba yaaxu moom lañ fi am tey ci special valentines bi waaye dañ dégg ne foofu la ñoo ñëw tagato, ne Fatou sa doomi nijaay la sama doomi nijaay waaw loolu la nit ñi wax parce que ñeen ñaari xëj na dañ ne joolaa jo bokkuñ ah kon ñu bari juum nañ foofu ñu ne Fatou daal sa doomi nijaay la dañ la ko may kon daal yaa dox ba gis Fatou bëggal ko sa bopp takka ko ah lii foor na waaye leer na ah euh, ndeysaan moom bu sumbaare eh? nag man maa ngi jógee ba Daslam. ndeysaan ah dafa sorante xamante wuñu amuñu connexion suñu suñu suñu suñu. dara. nit ñi dañoo wax lu leen neex rek. wax lu leen neex rek di la tuumal nii rek. di tuumal nii ah ah. waaye Abass bi mbaa jaamal est ce que du loo takka est ce que du si jaaru bi la wala bi nga wala spray bi Abas Abass foo génne ñu ne Abass yaa ngi sa ba ñu ngi naan léegi nag dégg naa mu am ñu ñëw ci dëkk bi nag di di ut sa nomba ah ñu ngi ut sa nomba Amérique ñu ngi ut sa nomba Sweden ñu ngi ut sa nomba England ñu ngi ut sa nomba Abass est-ce que du si loo sango ce que du gàllaaj yi ñu la jox la ah doomi joolaa nga de sanga nañ la de du ndoxi pour lañ la sangee de. yàlla rek hmm. sa liggéey moo du li nga ñemee sa poos la tam moo tax ca xale jigéen ñi di xeex rek. lu ma hmm. am. ndeysaan Fatou Fatou wax na ko. am nga yërmande dala si sa duma ko yor. ndeysaan. dërëm sa sama account dafa dee dem ba toog di xaar di liggéey di xaar leneen ñëw. macha allah lu ñu foog lu loolu de dama bëgg a joxe rek man lu ma am lu ma gis sama doom aadama la ko te du ma ko hmm. waaw foofu fu ma ko waxee foofu laa ko jox man loolu laa mel du dara. ndeysaan bokk ak nit ñi rek xam nga soo nit ñi tamit soo leen faale ñu faale la mm-hmm. man foog naa loolu rek moo tax nit ñi ni waa Abbas Abbas dama leen faale rek ah loolu rek la macha allah nit ñi rek ku ñëw ak solam su ma la xamtee sax soo ma waxee su ma amee ma jox la ma toog di xaar macha <laughs> kon ñoo ko dégg yàlla mu ñëwaat ba tey Abass ñu def seen black black man ma def reet nag toj la ko ci digga bi toog ci digga Voice Out Digital suñu maa ngi gis ngeen ko mu doon reet yëpp ci mbëggeel hmm. mbëggeel la ko lal mu ne fu mu àndoo fàttu dafay guddate dafa yàgga kon nit ñi nañu xam ne lii lu yàgga la ay da ñëw nag kii boot ko waaye itam kii nekk góor boo xam ne jengul ñu gis na nga yóbbu ñoom ñaar yëpp shopping trip yóbbu leen tooki yóbbu leen tooki nga àndaa ñoom every two months ah, ah lii moo tax xale jigéen ñi bugg a si nag bunta bi tëj na nag sànni nañ caabi bi si pool bi ah ah ñoom ah? ci daa ngi taxaw de ta singul lañ de ah <laughs> ah ah ak kanati ah Abass yow li lay tax jigéen ñi dinañ la gën a toppatee di nga waxee ni every two months dañ bugg a taraanga de bugg a swimming pool maa si tiida yi bugg a sol bikini taxaw fii netaalu snap xale jigéen ñi ah eh. waaw loolu tamit man dañ am. dëgg la mooy liggéey kay yàlla dénk ma dara balaa ma koy def feneen. nga jox leen ko macha allah. su ma paree si ñoom soog a defar si biti. dëgg la loolu la dëgg la dëgg la fekkee ne woon nañ ma leneen nag. doo ko def ko def damay toog bàyyi di leen seetaan waaye dañ ma déggal sutural ma fu ma leen emloo foofu la ñoom moom daal amuñu fu mu nekk nii macha allah. Hmm. macha allah. Abbas ñu ne nit ki soo bëggee xam baaxaayam da ngay dem këram bu ñu ñëwee sa kër gis nañ sa relationship ak sa wokkasi ak xale yi nekk ci kër bi ñiy dimbale ci kër bi parce que kër bu mag la gis naa naka lañ la miinee kenn ragalul la Abbas ñëpp a ngi oyof di daw si yow loolu lu ko waral nekkuloo koo xam ne parce que borom xaalis yi suñ amee xaalis torop seen liggéeykat yi nga ko xoolee dañ leen dee ragal si bési sécurité man bi ñoom ñëpp ñu ñu ngi a waxtaan parce que borom kër bi su nekkee moo fi nekk ñëpp lan moo waral relationship boobu noonu sa diggante ak workers yi hmm. nekk si kër bi. man si loolu laa màggee moo tax man su ma nekkee fii man fii lañ doon gisoo suñu playstation. waaw mu ngi nii loolu laa gis. Hmm. su ma ñëwee kër ga rek ñoom lay ñëwal nekk ak ñoom ñu playstation fi léeg-léeg ñu saagante fii sax dañu dañu fàtte sax ne <laughs> maa ngi toog <laughs> wax dëgg yàlla waaye àdduna amul solo. dëgg la àdduna amul solo adna fi jaar jaar la rek ak hmm. fi bàyyi même loo am am am ah yàlla yàlla daf la ko dénk rek ah moom moo ko de yàlla dafa ko dénk rek su la dénkee tamit dafa ne nga gëstu ñeneen yi sécurité man bi su man ganew ma ko dëgg la dafa amul rek moo tax mu ñëw di ma security, wax nga dëgg su amoon moom tamit daf keneen moo koy sécurité dëgg la du dëgg mhm. waaw loolu la xëy na yàlla mun na toog ba dénk leen ñoom tamit suba kenn xamul luy ñëw ëllëg nit da nga war a luy ñëw ñëw fii lañ toog suñu euh, borom réew Adam Baro sama sama sama dëkkandoo la no fi nekkon waaye anam president na ana president fekkee ne ngeen tagato rek wa dëgg de yàlla na leen la fa tam siiru leen su leen ñaanalee dina leen comme rek ñu leen rek ñu nga ñu ñu dem kon ñu woyal ñu lu ñu close ko ak ak ah ak papa xariti Aida waaw ñu may ko rek avance mu tëj hmm? waxal tey sa la hmm. ah waaw foofu laa bëggoon nga ñëw very important point ñeme leen dara ne bu wërsëg la góor yi tamit ñeme leen di aba sëriñ ba pare ngeen mel ni man ah aba sëriñ léegi nag ñu dem Watson Gambia kan lañ bindoon kooku jël ay you know càkk bi def ko fa def fa ay xooti butéel hmm? dama foog ne ko yàlla moom ko seen biir yu jamba exemple la ayda du ah, jamba pour bëgg a am avance rek soo kon daal ñu déggoo comme lu Fatou wax la rek ñu déggoo mhm. women empowerment la Fatou di wax ne si wujje bi la ñu empower each other mhm. ñu yërëmante leen ngeen nekk ñu jub si seen jabar man de loolu laa wax fooguloo ne léegi-léeg góor ñi la tam ñu jénga nga dem ayesi ayda wax ci lu bon ci faatu ayesi faatu wax lu bon ka ngay def loolu yow sa njaboot soo demee di wax fii lu bon dem wax lu yow yow yow ne ko nit ah xam ne yow sa njaboot la dem di wax si kale lu ñaaw di wax yow yow sa njaboot la mm-hmm. yaa ngi jaxase yow góor bi yaa ngi jaxase sa kër ta tas sa man gis loolu daal loolu kon waaye soo waxee fi lu baax wax fa lu baax sa jabari sax dañ lay gën a respect ko hmm. ñoom suñ toogee seen biir dañ day waxante jigéen am ko la ñu def dëgg la dañoo waxante si fu wax yi foofu lay sulle waaye suñu ne kale yow gi foo dem da wax foofu lu rafet wax dëgg yàlla ñoom dañ lay a respect te ba pare dañoo gën a tiyante hmm. man de loolu laay advice sama morom góor yi man leen ñeme leen nag comme man takk leen bu <laughs> am benn jabar dooleel dem leen <laughs> Abbas ya wax lii de jabar yi tamit jigéen yi tamit ah. ngeen muñ ñu muñalante ñu ah. la dëgg la islaama ko wax islaama ko wax Abbas sansa yi foo jàngee sanse Abbas da ngeen day sanse foo jàngee sanse ñetti abdu yi si korite yi ñetti abdu yi si tobaski yi ñoo ma koy ñawal de ah eh, Fatou nekkee ndeyjoor Ayda nekkee caamuñ Fatou dina ma ñawal Ayda ñawal ah a ñaw ah, mooy dem si teeloo dañ am kay dañ ñëw si kër gi maison ma sa duma xam ñoo ñuy tan lepp ne la solal bi ah waaye abasan say am lañ doole de ah, yaangi wacce internet bi de yang yaang koy yengal de de yaangi yengal gësëm de yengal nga gambi yengal nga Dakar <laughs> ah? <laughs> ah kon ñu baye rek nga tek luñ faté ñi nga gërem nga ñëkke ko sa jabar sa sa kat yi ak sa njaboot yi hmm? kon ñu baye la rek nga tek ci abass ah, euh, aw bur ndeysaan amiin ndeysaan Desa, tamit di ko you know won ni moom dafa bokk si ñun di def lu rafet di wax lu rafet di ñu di ñu ba dëgg yàlla di di ñu sagal loolu laay wax mhm. waaw ndax moom euh, tamit ku baax la ku am yar amin ah, amin ah, amin waay amin amin ah, di amin waay nah, amin loolu di di di ñaanal réew mi tamit gën dem si kanam amin ah, di ñaanal réew mi dem ñaan def jàmm si biir Gambie si ya. biir Senegal si àdduna bi def ñu jàmm may ñu jàmm la jàmm daf foofu la caméra yi di tiim ñu tiim jàmmaa fi nekk jàmm su fi am kon ku nekk mu ngi tal leneen ñu ñaan am ba di wax askan bi ni àdduna ay waxante lu ñaaw jaru ko mm-hmm. waaw waxante lu ñaaw jaru waxante rafet loolu moo gën ndax rafet moo indi moo indi jàmm mm-hmm. soo leen di waxante lu ñaaw mooy yee fitna ndax ñeneen ñi duñ ko mun soo waxee dëkk lu ñaaw te moom ko antan rek fitna ñëw na waaye suñu waxante lu lu rafet di yërante lu baax wallaay dëkk dina gën a dem si kanam. Mm-hmm. dina gën a dem si kanam man loolu lay wax ni nañu use intellect in a good way. Mm-hmm. ñu bàyyi baat yi ñu use ko use in a bad sosal nit sosal wax nit ñi ñu ko jaru. waaw mm-hmm. ah, jaru ko ñun ñëpp benn di dimbalante kenn du dem di ñaanal di jàmm ko. di nga gis yàlla dafay wàcc suñu dimbali mooy sama xalaat. dëgg la rafet na. ñun ñëpp nekk benn ñu liggéey. rafet na. sax loolu rek laa am pour wax. jërëjëf ma ne ko jërëjëf kaddu yi rafet nañ. ñu bàyyi madame rek dégg nga sa jëkkër li wax yow tamit nga tëj su ko rek ñu rapop ah ko neex bi madame Jaaju. ah kontaan naa seen seen ñëw ne nag rafetal naa ko trop moom suñu séeri koko nag ndeysaan maa ngi baax di ko sant nekk kilifa nag neexut nag mm-hmm. waaye moom moo dégg yàlla macha ñu yóbbee daal kontaan nañ si damaa ko gërëm di ko santa gërëm suma ñaari njëkke rek lañu am fi ñaar kese si njëkke maa ngi ñaanal yi seen séebi luñ bëgg yàlla suñu borom mu defal leen ko amiin sa dëgg te ñoom rek lañu am fi ñoom ñaar kese si njëkke maa leen maa ngi ñaanal gars seen séebi luñ bëgg yàlla suñu borom mu defal leen ko lingeer si kaw si kanam rek lingeer laa ko tuddee lingeer waaw ay nuyu sama xale yi si kër si besi yang yàlla itu fekk asli banget ini bari ñëpp balaa ya ah nañ gisante ku nekk ak feneen allah lontana troppo deviata. Grannava troppo. Così, piccani. Il mio aveva di San Giorgio. Ma una tre di Lontana thank you so much. di gërëm sa team ah mooy sa mooy leen gërëm bu baax naa liggéey bu rafet di def lii moom continuer di dañuy di indi jàmm si bu ngeen di def nii day indi jàmm si fekk leen di def bu baax la daal yow tamit di la gërëm bu baax yow xam ne yaay di la gërëm bu baax yow daal may la fan may la wërsëg bu bëri ah gis naa ne ah ah monsieur Bojak daal bu ko wax sama dégg te moom bro ah bro xam naa ne gisee ngeen. bro mi doon ne Abass ma mënul wax lu bari. <laughs> bro na gisee ngeen dégg nga. ah man boobu su boobaa damaa ma jël la coos. soo ma ne demalee nii ma dem nii soo ma ne demalee nii ñeme ñu ma ko woon. waaye ma ko woon waaye bu fekkee dina mel ni yow yaa ay la. kon ah. monsieur Bodian grand naa la. sax ëllëg la lan samedi mën nañu see takka waaye next dimanche nga takka. <laughs> dimanche nga yónnee guri xale bu la neex na virgère na saas na ko neex na mel ah, waaw man Fatou laay rootee ah si Fatou laay rootee kon nag ñu jaajëfal leen bu baax a baax gis ngeen ko ci oyof bi yéena ko gis si waxtaan bi ci relax bi waaye taxu tam ci biir ñi ñëw déggal laaj nañ ko Abass tontu nañu ñu jaajëfal leen ci Valentine's bi nii mbëggeel lañu wax ñii nag ñu nekk di king ki mooy di king ki mooy di queen ay da di queen muy lingeer lingeer queen la moom i tamit mm. ñu def lu rafet xale yi naw leen lu ñu xam ak Abass na góor ñi ñee ko lool si jàmma bi nga xamante ne am na ci parce que jàmma comme ni ko waxee si la yëpp xëy. góor dem liggéey këram di tàkka mënu koo fay musiba la. waaw waaye am sa jabar ñu juboo kii mu ne Aida du wujaam rakaam la loolu seeda na xol. kon mani tamit bu fekkee ne war naa mën a rek na doon suma raka rek ñu ànd def ko mu jeex ñu dalal xeli monsieur Bojang rek man it su may njëkkee ma ngi a a baax di ki ma benn yoon aw Bojang yena suuf gën a sedda si kawam kooku suma njëkkee prix fort la mama Bojang kooku suma xarit la kooku moom suma suma suma suma njëkkee ma bëgg a te teyu ko moom noonu la mel ci man di na nag bongomaan yi kenn yaaxuñ ci dara parce que nag bi bu neexee ñoom bokk nañ ci ndëkkoon dina boorin team bi moom isa ma suñ liggéey la lii la ñuy def ñu ñëw seet si suñu célébrité bi Abass di millionnaire noonu lañ koy taytulee sax di Gambien millionnaire Abass <laughs> Jarju moom lañ koy taytulee sax ah. Eh, dañ may tooñ oh, waaw. Mm. waaw definitely kon nag lii lañ leen amaloon jërëjëf jëf kon bëggu maa ne rek ngeen teg ñu.

Aïda mooy sa yaay Fatou mooy sa yaay sa yaay ba muy def lu baax booba lii xewul waaye sa baay ba muy def lu baax booba lii xewul waaye dul fayu tukkiwul yàgg kenn jëluwu ko wax leen doomee garmi la Fatou mii nii doomi garmi la Fatou doomi garmi la woo sii sii doomi garmi la Fatou ci laa ci la te doo ci taxul ñu ne ci nga waaye ci nga boo gis am na lu ko waral ba tax ñu ne ci nga bu ci génn sa bopp ci nga bu ci génn sa bopp ci nga